Maja, Maja, Maja, Maja. Voilà, top, c'est parti. 16 partants pour une distance de 1650 mètres à parcourir. la première course du programme avec un excellent départ du numéro 9, Linger Ngonegé qui s'installe au commandant le numéro 17, Yogoulbou, monté par Momo Diomé, en 3 euh, position, en 4 position, monté par Mbaye Fatima, en 5 position, Malik Lebos en sixième position, 7 position, Ndiap en 8e position, Ndour émergence montée par Sidi Sow attention alors euh, xare ñëw na ci tournalu xombal bi aussi li nga xamante ni moom mooy tournalu Alpha Ndiaye

professeur Sakhid Cham, toujours ki nga xamante ni moom moo de bataille, tey moom mooy de euh, Ngoné attention Yeggoul Bour na en deuxième position Xane troisième position jàpp en quatrième position góor attention euh, laxaat jockey bi nga xamante ni moom moo war li ngeen wan a jëy mu ngi si kanam ba tey mais yëgul bëre bu góor a caama dal na ci kawam ak ki nga xamante ni moom mooy moomal jëy laxaat. attention entamé la ligne droite ba tey euh, en première position moom mooy euh, buur en deuxième position attention ndaje attention le numéro 10 ndaje ñëw na en troisième position ba tey ki nga xamante ni moom moo génn wut ci tournal xombal bi moom mooy li ngeex ngoone jëy deuxième euh, position yëgul buur en troisième position nag xam nga ki fa nekk moom mooy euh, njàpp le numéro en quatrième position voilà euh, Talibé en position mais bataille par Texas Ranger Ranger en première position Daram en deuxième position euh, Père Alpha 200 mètres attention attention attention Attention. attention Attention. Attention. ñaari Attention. Nek nañu Ben, Attention. Attention. attention Attention. attention Attention. attention Attention. photo finish Attention. attention attention, attention. Il y a photo entre le numéro 17 Jigoubourg et le numéro 9 Lingard Ndonegay qui est le numéro 6. Damel Daoud Demba Mouam 3e, le numéro 2 Vadeni Mouam 4e. Attention Jigoubourg. attention Lingard Oh, Wow Bogar. tellement que dama kontaan ba wax parce que tamit mis euh, dafa de waaw vous bu le bëgg ko dégg mais nekkal ci li nga war waaw mais macha allah. waaw ñu gis rentrée bi ngeen def rentrée bi ngeen def léegi rentrée bi ngeen def nii. waaw dëgg la def nañ rentrée bu baax wax dëgg yàlla mais tamit lépp rek ñu ngi sant Momar Dieye di ko di ko gërëm parce que liggéeyam rafet na te dara te waxtaan ci waaw. bu bi ngeen def ko sa Momar Dieye def entraînement kon dafa mel ni ngeen doon xaar waaw waaw waaw xam nga tey jii boo jëlee choqué bu mag da ngay am yaakaar rek am résultat mais liñ def nag mbiru suñu borom la te suñu borom may nañu ndam dañuy kontaan tamit beneen bu ñu mayee defee tamit dañuy muñ xam ne rawante la. lan ngeen sama papa Sakhir Thiam mu ngi leen ak waaw pour euh, sama papa Sakhir Thiam moom sama papa la sama xarit la dañ koy ñaan gudd fan ak wér gu yaram. mamar gis nañu au départ da nga am départ bo xamantene bu bu baax la après nga récupérer wat sa fas ari na la ci arras bi euh nan ngeen préparer fas yi ba am confiance ci mom ba mën ko retrograder mu tok japp fi le ñëw raw fas yi. waaw ginaaw buñu sante yalla di julli journée bi di sante suñu ñaari wajur di sante sama papa di ko gëreum di sante sama yaay di sante mi sama soxna di gëreum wa salum di gëreum sama serigne Adi Niass di ko ñaanal yalla may ko wër di. Sandu supporteri, amuñ sen fay supporteri yëpp maa ngi sant di len gërëm ñi ñëw ak ñi ñëwul di sant staff bi nga xane du ñu ubbi groupe di top Momar nek salum ak wa tiawon ma ngi len di gërëm bu baaxa baax di sant dekk bi mo joggé muy ka ma ngi len di sant di len gërëm ndax ñoom tamit ñu ba légui ñi ngi may jappalé ba légui ñi ngi may wo fasi dañ ko préparer préparation bu normal andiko dawal ko ndax ba may man tiituma quoi ndax xamna ni ne andal fekk ñom ñom rek la ci kàttanu suñu borom yalla dana may ndam loolu tax amu benn tiit di sant mi sama patron diko ko sant bu baaxa baax Sidi Ndaw ndax taxawu na daal bu baaxa baax waaw. nan nga ndaw lan nga nan nga dawalee. dawal dama ñu dawal dawlu mag rek. ndax ñom ñom mën nañuy kon man damay tok rek xaar parce que mënu na ko door mu genn mais wóoru ndax kenn la course de rentrée aussi. course de rentrée. te manqué soko war. di ñaan yalla mi nga xamne dara tawugo ikri bi ma dugg ni muy ikër Sidi Ndaw di ko ñaan yàlla di ko ñaan jol fa maire sooke roo fa ëppan roo fa grand prix da loolu laa bëgg te moom laay ñaan suñ borom bi incha allah ci kàttanu suñ borom. jërëjëf jërëjëf lan ngay tàggatoo. waaw di tàggatoo kaay neen ren écrit Maxtum la na supporter yëpp ñëw ñun ragaluñ dara waaw na gars yi ñëw rek ñu xam ne ren décision laa jël quoi wax dëgg yàlla dañ ma yónni te gars yi xam naa dañ ma yàkkamti quoi incha allah waaw. bi nañ ma xaar maa ngi